yaay yi amoon nañ ci une part de responsabilité bu rëy rëy rëy xale bi ci biir kër gi lan ko daan yar ci biir cellule familiale bi fa lan ko daan yar bi fa la daan tàmbalee comme ni nga ko waxee avant muy laata muy génn euh, soxna ndee la kon nag ñu dikk ci nan lan doon yaree xale yi ci biir kër gi nan lan leen doon yaree ci biir famille bi laata ñuy génn waaw soxna Marème loolu dinaa ci sawar ndaxte nit ñu dañu baaxoon bu njëkk ba te am ñu baax ba tey nga daan gis sa benn xarit wala muy sa mbokk amul doom nga xool ka yëg sa doom jox maanaam mu am ñetti at wala ñeenti at lu mu kaa jikki jàngal boo xëyee suba boo yeewoo lalal lal bi mu lal bu mu baax nga ni mu bale ba mu set nga ni ko kaay moom la ni noo boyale boyal teg ndékki bu ngeen ndékkee ba pare nga ni raxasal na bu ndékki mu mënagul dem marché mhm. léegi am na ko dem marché ñu jox la ceeb ne la tànnal ngay tànn def sa loxo tabaakaala macha allah ba ki jóge marché ñëw bu ñëwee ne la diwoo kaay nga ñëw mu la ay ceeb kaay xool ndugg naa ba ñëw lii lan la nga naan kii carotte la kii nawe la bii jën façon nga jën la nga koy jàngal jën hmm. wi nag mu tudd mun la xaw ma ngeen ko jën wi nangam la tudd lii nii leen kaay defee jàngale daal affaire hmm. togg ak yooyu hmm. ndax xaleel lu mu tuuti tuuti rek boo koy yoon wonee yoon rek mu dem ngeen ko léegi léegi nag ñëwal yëpp bi nga dugg li ba noppi xam nga yëpp yëpp yi nga yi xamul yow wax naa la mu ne waaw mun la ayta nag nan fas yéene nag taal daal di ko jàngal boyal boo ko jàngalee boyal wan ko ni ngay tigi cin yow dil def rek bu lay xool nga ko gis nga nii ngay def nii may def di ko def dégg mu daal ci ànd ndax am na xale yoo xam dañu yeewu te boo nangoo dégg rek daa xam jëf yi su paree nga ne ko léegi nag gis nga moom la noo tey bu nee tey nga wan ko daal wan ko yëfu jigéen am na xale yoo xam dañu sawar mm-hmm. ñeenti at rek mën nga ci jàngal xale liggéey tabarkalla macha allah bu nek non bu ngeen sóor ba ya bu ndé wajja yàq ko ay ci ñewon nak nga dem lal fi ñoo añee tanku ndox raxasu wan nga ni nga tànk ndox raxasu bu démé tànk ndox raxasu lal ñëw ñoo la nga ne ko ay nag ñewal yek nek nag ma nga yek ya ñu defar defar ngeen yu ba bo dé lek do la rënd sa baram danga ka tek ci bo ndab li dañ lay rëndal lay tek ci sa kanam amuloo droit la leen di amuloo xool. fi mm-hmm. ngaa lekk rek ngay xool. doo jëkk raxasu mag ni boo suur itam dangay toog ba mag ni raxasu ba pare nga doo raxasu. Mm-hmm. soo paree teggi ndab yi daal di yóbbu ñëw nag boyal fekkee dangeen di attaaya yéen a xam nga wan ko ni noo boyale attaaya ji di boyalal nii defal nii def wan ko daal. Mm-hmm. tabaarkàlla macha allah. bu màggee moo koy jëriñoo. dëgg ni ko ko màgg daay yóbbu. waaye léegi nag Marème yaa amatul. ba kudd amee la wéré di am. ndax danga daan lekk loo xam ba léegi damay dank. damaa dank raxasu ba set dank. waaw loolu nga génn dank waaw dégg te danga daan sol yëre yu yiw boo gisee mag danga koy jox cër. te itam taxawaalu amatul woon. ba dal alxuraan yóbbu la ci alxuraan bi. nga jàngi alxuraan loolu alxuraan mooy nga jëkk dugal ci sa bopp balaa école di ñëw tabarkaal alxuraan ba xëy na daa fa def ñaari at wala ñett ndax ñeenti at nga am boo demee en face muy bu boo tege alxuraan ma ñetti at xam nga mm-hmm. mm. boo wàccee école mbiri mm-hmm. soo wàccee teg sa saak delluwaat ci alxuraan ba jàngi ba une nga wàccaat ñëw añ dem jàngi soo wàccee 5 heures delluwaat ci alxuraan ba ba 6 heures nga delluwaat ñëw fekk affaire reer bi xëy na pareeguñu reer nga ni maam wala yaay wala tante lu noo def reer mu la àddu ah, gonaadi nga daal ni nga won ma mu daal la won ndax am xale yu sawar. Mhm. daal la won mhm. nga daal di jàng togg ba mu baax. Mhm. bu guddee nga daal di génne sa leçon jàng ba mu mokk. booy resté yaa xam ku la jàngal yaa xam. bu tëdd jotee nga tëdd ci sa wetu tante jooju ñu la jox. te du ca gannaawam waaye foo demoon ak foo nekkoon ak foo jëm yooyu mm. amoon ci mm, xale yi de fit ndax dañoo ragaloon mm. tey jii Marème dangay gis dis ci xale yu dobb yu noo sol ak pantalon te ñun bu ñu mësaa gis dañ dañoo daw dañoo ragal sa jaaci koñ ba xale yi lii ci li noo xuus sol lu leen neex te boobu pantalon amul donc buggaa sax daw loo ko sol te daa nga sol ko ah waaye léegi Marème jar dafa am xale yi xamuñu noo waxe nga xam joxuñu mag cër te bu ñu gisee nag ni ci la ñoo gën am fit nag ñàkk kersa ñàkk kersa di génn ci làmb yu bon a bon. Ah, macha allah rek ah. euh, Adja Ndella la ah. euh, yaru démb dégg dégg nañ ci tey lu am solo te xam nañ ni dëgg dëgg.